aca Top c'est parti quatrième combat de la soirée Bandit 43 Sibassor moo nekk à bu Ngothie Bandit 43 Cartouche bu Ngothie ndeysaan mooy quatrième combat de la soirée le grand champion Issa Gurel ndeysaan mooy yëngal foofu noonu Bandit 43 Sibassor Cartouche Ngothie Bandit 43 Cartouche Oh, bandi karanta kartus. Ndaysan bandi moy ndamali. Kartus mo xaw suut mo def tend bi ci bobbi. Oh, bandi karanta kartus. Eh, Li la la ni bandi koy fakat. Bandi fakat nako. Jeexna kan appui. Bandi karanta suma sor. Bandi 40 Sibassor dan na ko Cartouche bu Ngothie waaw Bandi 40 Sibassor daan Cartouche